jaa ngeen jëf ci déglu bi ak euh, seetaan bi mbégteeg bànneex la ñu am dellusiwaat ak yéen sargal bu baax a baax mbokk yi safoo dak di bàyyi xel télévision Futur Média seen émission L'Oeil du Tigre daal di door waaye nag jàpp ne du ma ci wéet benn yoon bu ñu sargalee ñëpp ñi seetaan Moustapha ñu ngi lay nuyu. maa ngi dellu Mati nuyu sa sañse bu rafet di nuyu mbokk senegal di nuyu àddina di wax nag asalaamaaleykum waa Gambia. ci seen day indépendance célébrée bi ñu demoon ah di nuyu asalaamaaleykum di nuyu son excellence le professeur docteur Yaya Dieng Diamé ak njabootam gépp asalaamualeykum. asalaamaaleykum comme ni mu ko waxee fa la ñu ngi sargal baax a baax waa Gambia yëpp rawatina waa Serekunda di bàyyi xel ci ñoom bu baax a baax nuyu ñëpp ñi nga xam ne waxtu wi ñu ngi ñuy seetaan biir réew ak bitim réew li def nag Moustapha moo di comme ni ñu koy àndaloon na ko ak nga xam ne moo di Kandji production moom itam nga xam ne moo tëggoon diggante Koña ak nga xam ne moo di Dumbul waaye dinañ ñëwaat ci li nga xam ne moo di jëli bi jëli nag dañuy ñëw ci Luis Thior ak ne moo di requin tey jii suñu gan ci Leewtoo li ñuy faral di wax ni ku la wàllu yàndaa fekk sa dëkk tëggul te bokk ku bokk ci gétt gi naan ci meew mi suñu kër la ñu dugg mu di Mamadou Ndoye Bane mooy suñu gan tey jii ci li nga xam ne moom moo di Leewtoo daal di ñëw ak li nga xam ne moo di jàkkaarloo jàkkaarloo nag tey dañ ko def ak nga xam ne moo di Gambien buñ ne Gambien xam nga ni Moustapha Gambie la jógee ñëw direct directement ci Edu ci kon jàpp ne tey jii dañuy desandi lu bëree bëri foofu nga xam ne moo di biir Gambie ñu ñëw ak yéen ci li nga xam ne ak nga xam xam ne euh, euh, ci kanam tuuti ci suñu publicité ak nga xam ne moo di sponsor bu mag bi ñu àndal di banque bi gën ci banque yi bisik waaye bu ñu weesoo loolu rek dinañ ñëwaat ci affiche ci diggante ki nga xam ne moo di koyaate ah wala nag koyanta ah. koyanta ah. <laughs> ak kooku nga xam ne moo di ci Dine Mory waaye ñëw ak yow ci taaru lamb ànd ak Mbaye ci li nga xam ne moo di sunu zapping soog a dem ci statistique ak ñi nga xam ne ñoo di suñuy internautes loolu nag la am tey comme sommaire ci kanam tuuti nañ dellu si waat jërëjëf Maawo Abdourahmane ak nga xam ne moo di Muntaga ñoom ñëpp ñu sargal leen rawatina caméraman yi nga xam ne ñoo nekk suñu kanam ñangeen bi ak sama taaw di abu ak nga xam ne moo di sama xarit moom itam atumaan ak bibiche mi nga xam ne nag moo nekk ci maquillage bi ñi ñuy def moo di ànd ak yéen ci résumé combat résumé combat bi nga xam ne nag moom la ñuy njëkk def en promotion dañuy dem ci li nga xam ne moo di combat manga production mi nga xam ne nag moom itam samedi moo toj stade bi ñu ànd xooli ko mbokk yi nay tey ñoo ngi fii nga xam ne moom mooy ca stade Iba Mar Manga production mu nekk quatrième édition drapeau Christophe waaye oh, Pichal. laa ilaaha illallaah Baboye daan na Pakala teel laay deux mètres laay deux barke yàlla laay deux boo teeyul nu daan la teyal doo duma duma ko amul quatre appui laay daan na ko. Eh, Malick Fall daw na dëpp ko naax Ndiol Waalo rasu na Ndiol la de laay laay la laa daan nañ Waalo Baye Fall dina rey Boy Ndiaye ah eh Boy ngi dóor Boy Ndiaye ngi dóor Baye Fall a ngi dóor waaye yow manga mi boole combat bi man la yeb taxabal nañ ko daan nañ ko ah ñoom ñaar ñëpp mën nañu bëre lu lu mën a xew man koy xar bañ na rëpp na waaw quatre appuis daanu na waaw daanu na diggante Ndiaga ak Zator mooy sixième maa bi Manga 2 Manga production organisé lu toll ni école de lutte Lamsar Max Mbargane indi la amoo carte baax na waaw waaw rëpp na rëpp na laay laay la laa woy ah, amoo carte dóob eh daje nañu laay laay la laa eh daje nañu kur bañ la. la ilaha illallah ñaari kurbel ñu dajala dëpp na ko naax bay tandar tànn na Pape Trace dellu bu bas moom moom soirée ah la ilaha illallah daal luppe yow daloon tey moom tey ngay bàyyi lamb al bas soirée xaw almaami soirée ngay rokkas almaami bas daan wula bas da ko bëgg ko daan ko waaw waaw eh daje nañu daje nañu dana ko dóor mu daanu dëpp na ko naax waaw waaw bëri bëri mag laa xale dëpp na ko naax bañ na añ na ko bañ na dugg ko dugg ko tam dugg ko waaw tam daal na ba kaay sargal ko bu baax a baax kooku lee di Maawo Cissé nekk ci suñu ginnaaw sargal ko moom itam nga xam ne daf ñuy bàyyi xel saa su ne Tata Ndeye Awa Guèye madame Tata Ndeye Awa Sow madame ah, di jabar nag ki tonto Seydou Guèye foofu ca diwaanu présidence Moustapha dañuy demaat ci beneen euh, résumé combat di Kanji production nga xam nag moo tëggoon diggante Koña ak Dumbul. très bu neex. ñu dem xooli ko. Jackson Junior ak booy nag numéro 3 waaye yow lii lan la gars yi dañ a jeex na mais xoolal rek ndeysaan fi gii da ngaa si jàpp B52 jàpp bari waaye giita ngaas benn benn waaw daan nañ la daan nañ la bés. Eh, rajo la la lay la la 5-5 ak caatu Texas caatu Texas moo gàtt 5-5 ko rey. bi ku tëgg combat bi kan moo boole ñaar ñi kan moo boole ñaar yi yow kañ ji la bu la police jëlsee tribunal jël te góobe na nga ko kar seng-seng daan na ko rëkk ak lii coor numéro 2 lii coor numéro 2 face e la ilaha illallah lii coor numéro 2 daan na rëkk e eh, na ko la ilaha na pot mën yu mën a mën a rek amateur yi ñëw eh, caxabal caxabal laa ilaaha illallaah laa ilaaha illallaah wéyal na ko zëm daan na ko mbër mu xees ma daan na mbër day xees mbër day xees mbër du ñuul mbër day xees mbër day xees ma ne mbër day xees biloo doo eh booy loo jël na tànku Maama Lamine Maama Lamine bañ na eh Maama Lamine nag duma booy loo jël na ko daan nañ la booy loo maama trois allahu akbar ay eh, bi face à face eh, place de souvenir la laay Soundiata a daan na mbër laay mu ne ngalañ du mu lar kooñoo ñu ngi damantey baaraam ñu ngi damantey baaraam eh jàppale na ko mu toog daan ci ñëw ci kanam ndax nag Moustapha dinañu dëkk wax ci kenn ndax nag dimanche ba tey coow li bari na ku nekk mm-hmm. naan nan la ko daani da koo xalab wala mm-hmm. waaye ci kanam dina leer li ñuy def moo di ànd ak euh, yéen ci li nga xam ne moo di jëli bi jëli bi nag tey jii ci am Louis Dior ak nga xam ne moo di requin nga xam ne moo di combat bi dellu si waat requin ak mbooloo Roqe moo leen wan noonu la ginnaaw ndeysaan devant Mao Cissé ndeysaan dèjà Demba ndeysaan eh lii coor door lañ ko ma ngay jàpp lii coor ngay wut fu mu jàpp Serigne Ndiaye toog ca Bamba Roqe ak ñoom ñaar songoon nañu ñoom ñaar songoon nañu Roqe jàpp lii coor ndeysaan lii coor numéro 2 ak Roqe stade bi fees comme un œuf ndeysaan. ñëpp waxoon nañ saa yu kanji organisé mu neex requin ak li coor numéro 2 li coor numéro 2 face e la ilaha illallah li coor numéro 2 daan na requin mais bu yomb ah bii mooy wéyale wala mooy lan. daf ko wéyale daf ko wéyale daf ko wéyale waaw yow li mu nekkoon ci diggante requin ak nga xam ne moo di luy joor waaye laataa ñu ànd ak ki nga xam ne moo di suñu consultant escalité ak li nga xam ne nag rubrique bi nga xam ne moom la ñëpp yàkkamti parce que nag macha allah Sénégal yëpp ñoo bokk benn wax ji ñu koy yaanal rek yàlla la fal ko cat mu di Moustapha ndax nag dañuy faral di wax ni kan demoon ci xare ba rek moo ko mën a nettali lii la ma mënoon doy baat wax Tigre euh, li ma ci gën a neex mooy ni Moustapha Gueye di décortiquer làmb ji euh, tu sens que ni lii nii lu bees la ci ci ci ci ci ci émission làmb di sens que ni c'est un technicien nit ku xam làmb mooy wax li muy wax nii te li muy tegtal gars yi li muy expliqué noonu noonu mbër bu ci basé wu bëreeg noonu yàlla mën na mën na mën mën na la am ndam te ñeneen ñi nga xam dañuy yor ay émission làmb di ñu jéem a copier ci moom du du ñu am ak ooyofu copier ci moom. waaw parce que wax dëgg yàlla euh, moom mën naa ni moom daanaka moom moo fi war a waroon def émission làmb parce que moom moom moo def na fi lu kenn deful soo seetloo Moustapha Gueye moom dong moo daan bëri ci làmb ji di daan ay jill yu amul werante yoo xam ne kenn du demaat ca caméra ba di xool ay jëll yu leer naññ lay daal waa Fass sax ngay wax ñoo lay daan jël boo xam ne du am benn werante kenn du demaat ca caméra ba wala ñu dem ca kay kay kay filmer affaire bi naan waaw nañ xool daa daan na maam daanu ay jël yu leer jël yu leer yooyu moom lay wane ci rubrique boobu muy def euh, ci biir ci biir ci biir jël jël bi moom lay wane waat ci jël bi ni waa ji soo ko wëree ndomb am na benn technique bu muy expliquer souvent soo ko wëree ndomba ah xam nga mbër mu ñu wër ndomba ni nga koy def ba daan ko yow yow mbër mi yow la ñu wër ndomba pare nga am victoire am na ay technique yu ciy jàngale yoo xam ni ko jàng di nga ci am ndam donc képp koo xam ne da ngay mbër wala képp koo xam ne da ngay présenté émission làmb war ngay seetaan bu baax a baax a baax euh, li nga xam ne moom moo di rubrique boobu Moustapha Gueye di def te man mooy rubrique bi ma ci gën a damay génn rubrique bi commencé damay taxaw xaar ba mu jeex may doog a dem parce que wóorul man mii <laughs> war naay jàng ci ci yooyu parce que da ngay génn léeg-léeg nga am ay accrochage yoo xam ne di nga fa mën a jàng ay galgal yoo xam ne ay téqum biir yoo xam ne nit mën a laa song moo xam ne di xam ne foofa ci ko jànge muy doon doon lu am solo mbir mi du mbëri rek de ñëpp ci war a jàng parce que euh, mën na laa song song bu la bett boo xam ne mën nga faa jaara a fab caxabal wala nga dóor fam téqam mbir wala nga war nga nga dóor fab ab bipp ak ñoom seen yooyu yëpp yu am solo donc Moustapha ñu ngi koy sant di ko gërëm bu baax a baax ci mbir yooyu <laughs> <laughs> kii mbëru mbëru wareef laa ko bëgg a def. parce que non mokk la nag xam na tequm biir njol-njol ak ñëpp xam na ko. Mm. kon nag Moustapha décortiquer li nga xam ne moo di euh, combat bi lay doxoon ci diggante ki nga xam ne moo di luy uh-huh. ki nga xam ne rek moo di requin. ok d'accord yi euh, euh, merci beaucoup Momadou Ndoye Bane d'abord ah requin moo ñu féetee suñu wà suñu wàllu càmmuñ yor ngembul weex li luy coor écurie Fass aussi yor ngembul weex li mais liñ koy mën a moom mooy. yu xonq yi mu takk ci biir maanaam dafa jaxase li ñu naan rouge ak blanc noonu la ñu mën a identifier luy coorna mooy giddal tànku ndeyjooram ah ki nga xamante ne moom mooy requin bu grand F mbooloo giddal tànk càmmoñam mal euh, c'est extraordinaire ni ñuy léewtoo yi ni baax na parce que toujours la main derrière dafa war a servir li naan de garde ah ñu dem Mao ñu léewtoo ah luy coor seen ndeyjoor ba tey du Requin seen càmmoñ Requin mi ñu bëggoon ginnaaw di mel ni ki préparé dem à l'attaque mépp mépp direct gauche door crochet droit bi mébee direct gauche nag moom ki nga xamante ne moom mooy Requin di door si crochet droit li coo def ko gis wàcc di ko tibb xool les images parlent mépp direct gauche indi crochet droit li coo wàcc di ko song léegi ñu jàppante fii ah ba ñuy metti voilà léegi nag mu des ñu toll ci situation wu jàppante donc nga gis kon ñaari mbër yi ñaari mbër yoo xamante ne bëre moo nekk ci seen bopp. xeex bi dañ ko nuyoo rek mais nag ay bërekat dañuy bëre très souvent nga xool na kon jàppante nañu ku nekk di def recherche di yóotu gañoo nga gis Conte ji lii ci war bi moo ne ginnaawam. moment bi ñu toll nii daf leen jargantal la ñaa def cercle parce que les coups de poing bu ñu ko dee échanger très souvent dañuy tourné wu def benn cercle ba ki wanoon ginnaaw wane kanam ku ne nag di dugal seen ñaari loxo pour yootu gañoo fii nag ki nga xamante ne moom mooy requin dugalagul mais mi ngi waaj a dugal ji mais loxo ndajoor bi dugal na ko ba mu jàpp ah. Luitor nag avantage bi moom fii boo ko seetloo mooy pour mu dugal jàpp ngembam empêché waa ji ay loxoom dugg dafa jël bopp bi ndengañ ko ci fi nga xamante ne moom mooy euh, euh, diggante épaule bi ak loos bi ndengañ dafa am importance seen taxawaay baax naa xoolal requin ni mu taxawee taxawaay bu extraordinaire la lu Luitor nag gis nga benn tànk bi daf ko coos pour demi à l'attaque bama suñu dem maaw loxo càmmoñ bi dugg requin ngi jéem a dóor requin rek ci loxoom dóor léegi tout de luy coor jàpp taxaw di assurer prise bi si ginnaaw ah. c'est important fii luy coor nekk si ginnaaw ah, di téye téye njàmbil noonu lu am importance da doon ci bi war a ñëw euh, bientôt ñuy calculante déglante actuellement nag li ñuy def li nga xam ne moom la ñuy wax mêlée ñu ngi bousculante ku nekk di peser sa moroom ku nekk di seet fan la yoon bu baaxee allahu akbar moment bi mati dafa extraordinaire mhm. parce que booy xool luy coor fi mu nekkoon wan ñu ginnaaw dafa désaxé à sa droite tànku càmmuñ càmmuñ bii mu jël ko génne ko complètement indi fa adversaire bi fi tànk bi nekk nii fa lay sampe bopp ki nga xamante ne mooy adversaire am mu kii di requin de déplacement xool tànk bi ni mu ko def lem ko carrément bañ ko ko laal c'est important génne tànk bi complètement fi tànk bi nekkoon fa la jàpp bi xool fi mu jàpp lii moo am solo lii jël bi dégg naa gars yi di expliqué non jël bi moom moom euh, mu ngi tuddu tout simplement daf ko samp samp mooy lii jël bopp bi samp ko béy ko ngemb la mu jàpp sa gannaaw nag fa mu jàppoon ca commencement ba mhm. moo koy may doole mu téye bopp bi désaxé ñëw samp ko dara la vide tout seul ah donc noonu la lii coow bi nga xamante ne Eh, mi nekk ci bonne école de l'écriture de Fass daane ki nga xamante ne moom mooy requin jël bu set wecc bu amul benn werante te dégg naa bopp bu xasee ba laal suuf mooy nit ki daanu na c'est fini déjà bopp kese tout seul yow rek nga taxaw rek dem samp sa bopp directement rek mm-hmm. mati moom mooy daan nañu la kon da daan daanaat xanaa daan na ko jël bu extraordinaire bu rëy jël ji jël moom mm-hmm. benn dong la mën a doon mais daan na ko jël bu set wecc quand téye sa gannaaw nag. Mhm. mooy mooy mooy mooy kul bi mooy mooy li ñuy wax feeling bi sa gannaaw bu mu téye sam déplacé wu samp bopp ba. Mhm. téye ci ginnaaw nag. Mhm. àgg ak moom ba mu loolu mooy feeling bi nga xamante ne moo indi ko moo indi chute bu extraordinaire bu e-, bu baax a baax di bàyyi xel bu baax a baax ñëpp ñi wi ñoo ngi ñuy seetaan ak fu ñu li ñoom ñëpp ñu sargal leen léegi nag li ñuy def Moustapha moo di ànd ak sa xarit di Mamadou Ndoye Bane yàgg ku la yàgg suivre la nag. ba way Mamadou Ndoye Bane déjà à mu nekk mu nekkoon homme de la rajo. Mhm. léegi mu ñëw de la télévision. Mhm. Ah, ci li ñu Sénégal. macha allah ñëpp teg seen bët mhm. la. la rajo. ses Sénégal mooy. ñëpp a ko seetaan. Euh, aussi à la télévision. ak wareef moom. inspecteur <laughs> nekk aussi ku may mu wax nii dañ ko ci gërëm bu baax a baax di ko ci sant moom. am moom seeti ko ci nga xam ne rek moom moo di sunu moom la dalal ki nga xam ne rek moom moo Ndoye Bane ci Leewtoo ñu xooli ko. asalaamaaleykum yéen waa Sénégal man la Mamadou Ndoye Bane di animateur groupe Futurs Médias tey man maay invité waa Leewtoo di ziar waa Sénégal yëpp ak ñëpp ñi nga xam ne dañuy seetaan Leewtoo musique ak làmb euh, war nañoo mën a ànd parce que su gars yi euh, xoolee ci ki nga xam ne moom moo di ñoom say maam góor gi Ndiaye ñoom Souleymane Diaw paa yooyu nga xam ni ak ñoom papay Ama Balde bi ñoom euh, pa Fala Balde ñooñu musique bi ñu doon def aada ak cosaan la goo xam ni loolu war nañ koo delloo si delloo si waat ko ba nga xam ne xale yi dinañ mën di def ay bàkku di def ay tuus yoo xam ni dinañ mën a delloo cosaan ak aada ci biir làmb ji li ma li ma li ma li ma àndul rek moom mooy musique euh, euh, moderne bi nga xam ne moom la ñuy dugal ci làmb ji loolu pour man àndul àndul ak ak ak làmb bala li gën a ànd ak làmb daal mooy bàkk yi yi nga xam ne moom mooy gën a wane culture sa culture bi nga xam ne moom la sunu maam yi moom cosaan ak aada moom la moom la ñuy moom la ñuy gis ci cosaan ak aada su ko defee mbër yi ci boppam mën a roy ci ñoom maam Seer maam góor gi Njaay ñoom Souleymane jaw ay ñoom sunu sunu papa ama kii Falal Bayte ñoom seen su ko defee gars yi mën fee bàyyee dara su fekkee ay jël rek nga fi bàyyi te bàyyiwoo fi bàkk day mel ni yow sa làmb des na defe naa ni musique ak euh, li nga xam ne moom moo di làmb su fekkee ci côté cosaan ak aada di musique euh, euh, traditionnelle bi lu am solo ah yi laaj nga ma laaj bu doy waar xaw ma bi ma gën a marqué la xaw ma bi ma gën a metti la mooy combat bi nga xam ne moom la Moustapha Gueye doon bëri ak Tyson jamono yooyu soldat laa woon maa amoon congé ñëwoon Ndakaaru dem seetaani làmb ja bi ma duggee maa ngi toogoon ci wetu saako yi waaye mat bi bi bi bi bi Tafa Gueye ne sarax jël tànku Tyson bi daw ak moom moment yooyu lox naa lox goo xam ni tuuti ma dugg ci biir làmb ji. dugg ci biir Arsen bi jàpp tànku euh, Tyson bi tellement que dama faroon far goo xam ne man fas la man ñëpp xam nañ ni man Fass waa laa ginaar guy bëri Fass sax ganaar ga laay ganaar ga laay faral tellement que dafa am fu combat boobu dafa am fu mu yóbbu woon combat bi jeex na ba ñëpp ñibbi man ma des ci biir ca biir estade euh, ba tellement que ci defetu Tapha Gueye boobu daf ma mett daf ma metti woon trop trop trop trop trop combat boobu mooy combat bi ma gën a marqué ci ci ci làmb mooy combat bi ma gën a metti tamit ci làmb ci waaw ba léegi maa ngi koy jooy metti na ma lool waaw lamb ji du yoon amugul arène euh, war na am arène parce que euh, sport la boo xam ni sénégalais yëpp yëpp su combat bu mag amee sénégalais yëpp dañuy concentré wu mel ni équipe nationale moom mooy moom mooy mooy football donc dans ce cas war na ñu mën a am arène mais nag man li may wax mu nañu xool fu leen di tegal arène bi xaw fu leen koy mënti tegal mais su fekkee dañ koo bëgg def ci biir nëkk bi moo xam biir Dakar la moo xam Guédiawaye la moo xam Pikine la moo xam Tëngéej la nañu jéem a gérer sécurité nit ñi du ñëpp la làmb intéressé wala ñi làmb intéressé su làmb ji jeexee euh, supporter rek ñoom seen dañuy tourner di ñibbi instant bi làmb ji am ni stade Demba Diop su làmb ji jeexee waa si Sicap Liberté 6 Liberté 2 Liberté 1 Gaston ñëpp dañuy am problème parce que agresseurs yi dañuy agressé ñi nekk ci yoon bi yëpp donc suñ jëlee làmb ji dugal ko ci biir dëkk euh, arène bi dugal ko ci biir dëkk bi d'accord dinañ régler problème mu ñenn ñi mais tamit dinañ déranger ñenn ñi donc dañuy mm, ak a baax a baax sécurité nit ñi parce que am na ñoo bari ñoo xam ne faatu nañ ñu ci yoon bi lan moo leen faat ay agresseur wala ay nit ñoo xam dañu mécontent parce que dañu daan seen bër ñooy nekk ci yoon bi di déconner ba ba ay nit gaañ ci gaañ leen ci te loolu tamit boobu bi war nañ koo mën a sóoraale bu baax a baax. L'Oeil du Tigre euh, li ma ci gën a neex mooy ni Moustapha Gueye di décortiquer laam ci ci sànq ni lii nii lu bees la. ci ci ci ci ci ci émission làmb di ni c'est technicien nit ku xam làmb mooy wax li muy wax nii te li muy tegtal gars yi li muy expliquer noonu noonu mbër bu ci basé wu bëreeg noonu yàlla mën na mën na mën mën na la am ndam te ñeneen ñi nga xam ne dañuy yor ay émission làmb di ñu jëm a copier ci moom du du ñu am ak fu copier ci moom. waaw parce que wax dëgg yàlla euh, moom mën naa ni mu daanaka moom moo fi war a waroon def émission làmb parce que moom moom moo def na fi lu kenn deful. soo seetloo Moustapha Gueye moom dong moo daan bëri ci làmb yi di daan ay jëll yu amul werante yoo xam ne kenn du demaat ca caméra ba di xool ay jill yu leer naññ lay daal waa Fass sax ngay wax ñoo lay daan jël boo xam ne du am benn werante kenn du demaat ca caméra ba wala ñu dem ca kay kay kay filmer affaire bi naan waaw nañ xool daan daan am daanu ay jël yu leer jël wi leer yooyu moom lay wane ci rubrique boobu muy def euh, ci biir ci biir ci biir jël jël bi moom lay wane waat ci jël bi ni waa ji soo ko wëree ndomba am na benn technique bu muy expliquer souvent soo ko wëree ndomba. ah xam nga mbër mu ñu wër ndomba ni nga koy def ba daan ko yow yow mbër mi yow la ñu wër ndomba pare nga am victoire ak ay technique yu mu ciy jàngale yoo xam ni mbër mu mu koy jàng di nga ci am ndam donc képp koo xam ne da ngay mbër wala képp koo xam ne da ngay présenter émission làmb war ngay seetaan bu baax a a baax euh, li nga xam ne moom moo di rubrique boobu Moustapha Gueye di def te man mooy rubrique bi ma ci gën a neex su fekkee damay génn rubrique bi commencé damay taw xaar ba mu jeex may doog a dem parce que wóorul man mii <laughs> war naay jàng ci ci yooyu parce que da ngay génn léeg-léeg nga am ay accrochage yoo xam ni di nga fa mën a jàng ay galgal yoo xam ni ay téqum biir yoo xam ni nit mën a laa songu téq ko téqum biir moo xam ni di nga xam ne foofa ci lay di tiit nga ko jànge muy doon lu am solo mbir mi du mbëri rek de ñëpp ci war a jàng parce que euh, mën nañ laa song song bu la bett boo xam ni mën nga faa jaar ak dóor faf ca xabal wala nga dóor fa mu téqum biir nga war nga nga dóor fa ab bipp ak ñoom seen yooyu yëpp yu am solo donc Moustapha ñu ngi koy sant di ko gërëm bu baax a baax ci mbir yooyu geste bu am solo la c'est mbër yi ci boppam il faut ñu war a xam ni euh, ñoom ñoo bokk ndey ñoo bokk baay ñu daan la ngay fuuñ fuñ yi di dem am defet ba pare amaat beneen defet loolu képp kuy mbër war na ko moytu ñu daan la nga reconnaître que ni daan nañ la féliciter ki la daan loolu dina tax nit ñi sax. Euh, ñi nga xam ne dañoo mere làmb mën a mën a àndaat ak làmb daal ne ah jeunes yi kat fi mu ne nii soppeeku nañu donc Malick Niang ñu ngi koy félicité ci geste boobu tamit tey wax képp kuy mbër ngay roy ci moom ci yu yu mel noonu yu am solo la. mbëri moom ci saison bi bees mu ñu leex mooy ñu moytu ñuy waxe seen supporters yi ñuy moytu violence ñuy moytu violence violence baaxul ci dara waaw dañ koy gis ci sport bi di ko gis ci nawetaan yeeg ñoom seen mais lamb ji surtout surtout surtout ñuy wax seen supporters yi ñu ñuy segg ñi leen di rax parce que supporters yi souvent dañuy danañ mobiliser ba sonn di sensibilisé ba sonn mais dañ leen di rax ñu jéem a segg seen bopp te di xam ne ñoom ñëpp ñoo bokk ndey ak baay koo ci gaañ suba wala nga rey ko suba yaa koy yaa koy jaal ji donc mbëri ñi jéem a tamit bañ a topp tamit li nga xam ne moom moo di maa bi bay bay bay wax na ko sul noonu ah, moo di seen face à face yooyu seen wax yooyu ñuy wax na ci nit ñi di moytu di wax loo xam ne ëllëg dalay topp wala ëllëg mu topp mbir mi donc loolu daal laay ñaax ñi nga xam ñooy mbëri ak supporter ak képp koo xam ne da ngay da ngay da ngay topp mbëri te tamit su côté côté xar foo xuufa ñuy def ndànk nañu xar fa xuufa am na solo waaye na nga def loo xam ne ci combat bi la su combat bi jeexee nga dindi ko. côté xar fu wax na ci lu baree bari ndax da gis sax koo xam ni après combat dafay sonn ba naan sax ni a mhm. lu mhm. ñu fekk la di ko jëfandikoo maam daan ko jëfandikoo mhm. dindi ko day jafe mais dañu wax xale yi rek ñu bàyyi xel ne loolu baax waaye ci biir arène bi nag caractère la savoir faire. Mhm. ah mën a bëre. Mhm. mën a xeex am stratégie de combat ak mhm. mën bis. dëgg topp nag moom mooy sëriñ bi du jàpp loxo kenn daaneel. donc encore remerciement à à Mamadou Ndoye Bane. pire la jógee <laughs> ñëw direct la nekk Boy Town léegi Boy Town lan dëgg. Boy Town pire sax. kooku man ma jaaxal mati mooy ko ci artiste bu mu doon. waaw ku ci mënti doon même le président de la république boo ko dëppee micro moo ko ci làmb. mais ñoo ko moom suñu cosaan la. donc nañ ko gën a fonk dañ nañ ko fonk dañu ko téye comme ni mu ko waxee di xaar nag li nga xam ne moo di arène bi comme nag ni ko ñëpp di xaaree Moustapha dañu dem Gambie sargal nag waa Gambie bu baax a baax mu mel ni nag le euh, février bi di ñëw mm. am na loo xam ne xew na ci stade du mm. euh, la nga ñiy tëgg nga xam ne ñu ngi ko dippee ki nga xam ne moo di madame Kati Dior Samba nga xam ne moom lañ ko dippee ci diggante Gambia ak nga xam ne moo di ko xam ah no Gambie ak xoyantaan ah, ah, ah ak xoyantaan drapeau beneen bi nga xam ne dani euh, Dani Flex lañ ko tuddee. Mhm. ñu ngi ko ci diggante Jinne Mouri ak euh, sama beneen mbër bi. Mhm. <laughs> moom euh, ñoom ñoo koy bëri euh, ak yeneen yoo xam ne dinañ ci ñëwaat léegi léegi ginnaaw bi ñu ànd ak nga xam ne moo di jàkkaarloo ak Gambien ba pare waale waa Serekunda bu baax a baax xam nga sama yaay la dëkk. mu nuyu bu baax a baax sama magu yaay kooku di sunu tata di kontaan ci moom baax a baax ñaaleen Camara ak borom këram ñu ngi foofu ci Serekunda di ñu bàyyi xel ci télévision Futurs Médias kon ñu ànd ak Gambien ci jàkkaarloo. asalaamaaleykum Sénégal asalaamaaleykum Gambia man la Gambien. ay champion bu mel ni Moustapha Gueye mais grand baax na ba léegi nu mu demee nii. ah damay def damay non sport rek. sport mooy sport parce que yow ba léegi ah man bi ma la gisee pour man bàyyi ba bëri. <laughs> waaw. maa ngi nuyu Léory Tigre émission boo xamante ne ñun ñëpp euh, lutteurs dañ koy seetaan ñu ngi kontaan trop di la dalal tey fii ci Gambia. dañ bëggoon xam Gambia. lan. le turu Gambien bi fan la jóge waaw ginnaaw bu ma sant yàlla julli ci Muhammad kon ko ñun ay jullit lañu loolu la ñuy njëkkee ci lépp man euh, fii laa yaroo fii laa defee suma lépp man doomu réew mi laa lii rek wone na ko place bi ma lay indi fii nii nekkul euh, caaxaan moo fi ñëw wala moo fi liggéey donc maa ngi fi plus de six mois comme li ma lay wax Euh, juróom-benn weer maa fi entraîné ku mel ni Mourane xam nga ak euh, tubaab bi ma nekkal nii ñoom ñoo ma tee fii di ma jàppale ñu nekk doomu réew mi donc man euh, Gambien bi comme loolu moo koy firndeel quoi gaa lan moo doon sa tànk ñu waaw xam nga daaw président dafa organisé woon fii benn tournoi tournoi boo xamante ne bu amoon important la euh, dañoo defoon euh, région bu nekk ñaari mbër la jël région Gambia yëpp man ma jël tournoi bi euh, mu tegaat beneen bu ñuy wax si si si baax bi bi ñuy wax si si baax wax si si baax boobu tamit ma jëlaat ko donc tey ma xool ne fii vraiment mun naa fi liggéey dara mun naa fi bi ma fi ñëwee indi nañ ma fi boole nañ ma ay moniteurs yoo xamante ne. gis naa ne am naa fi important important boobu lay dàq ji moo tax ma daw laxatu fii. bàyyi la waaw suma palmarès xëy na nekkul lu lu lu nëbb lu bëri parce que ñaari defet laa amagum si làmb te ñaari defet yi ma am yooyu xam naa suma tolof tolof fan la jógee maa ngi koy sant yàlla am naa ay douze combats euh, ñaari defet laa amagum te suma première defet bi euh, semaine de combats. dama feebar feebar bu garaaw bu doon keneen sax day yàq combat bi loolu topp na ma plus de deux ans ba suma combat bu mujj bi problème boobu xawoon na ma sonal parce que boo ma xoolee tey ak gambien bi bëree ak dun kii euh, gambien bi bëree ak bay pël ak bi bëree Xaadim Njaay numéro bi ak bii ça fait deux waaw. est-ce que mën nga ñu limal benn par benn mbër yi nga daan Sénégal. waaw xam nga yenn combat yi man bi may commencé fës 2007 bi ma dugg ci classe bi. maa ngi dugg ci kalaax bi bëree ak naa Touré yeneen combat yi xam nga kii combat yooyu la ma nit ñi commencé ràññee. waaw ma daan ko ab bi si topp ñu boole waat ci kalaax bi. yàlla def ci kalaax bi tamit ma daan ko daan bisimilah daan tatide daje ak nees daan ko xam nga ñëw naa Gambie fii aussi euh, dóor jum xaaf mu daanu euh, ma ñibbi Sénégal avant loolu bëre woon naa ak Lamane Sarr Fafal Casamance drapeau Ablaye Balde ki ko teggoon xam nañ ko <laughs> xam nga yooyu yëpp yàlla mu ngi ma doon sutural ba mujj bi bon ma am ñaar yi ma mujjee am te ma xam ne man te dama bokkoon ci espoir lambu Sénégal ku wax làmb ay temps da ngay wax booy gambien bu bul faale te am nañu yaakaar si moom yàlla indi tolof tolof boo xamante ne il fokkee ma laxatu tuuti parce bu nekk woon comme ku mel ni yow doo ma mun a génne li may def actuellement nii damay euh, laxat bu bari fi mu toll nii lool. c'est ça. Euh, actuellement euh, lamb yi ubbeeku saison bi. lan la joxagum. waaw euh, sunu làmb sunu làmb ji ñun mais bëgg naa yéen ñi euh, mbër yu mag yi ngeen gën a góorgóorlu si lamb ji mais bu leen bàyyee làmb ji kese kese ak promoteur yi tey ku mel nii eh, Yaxya Diop Yékini ku mel nii Mouhamed Ndao Tyson ku mel ni ñoom Balla Gaye ku mel ni ñoom Modou Lo tey. ku mel ni ñoom Eumeu Sène ak yeneen champion yi ma lim maa ngi war a euh, daje ak xoyontaan euh, Serekundaabe euh, samedi bii di ñëw dañoo dañoo war a bëre mbapat la mais lamb ju rëy la parce que ñun suñu dara ndawul mbapat lañ ko mujjee def mais làmb ju rëy la biir Gambia waaw mu tombe ak suma grand Tafa Gueye ñëw mu bëggoon ma jël. waaw man loolu considéré wu ma loolu si côté bi muy bëree dama xam na rek man euh, su ma demee ba war a moytu mbër walla xool mbër bi ma war a bëral ak li ma du war a bëral euh, bon war naa mën a xam bàyyi bëree parce que waratuma na ay mbër bi may bëral ko waaw liggéey naa waaw liggéey naa liggéey bu métti liggéey boo xamante ne euh, amul combat bu ndaw parce que dafa fekk ma daw laxatu fii di liggéey suma liggéey euh, promoteur bi ne ma <clears throat> balaa ngay dem il ñu tegal la fii mbapat comme que bëre dóor dañ ko arrêté fii ma ne ko mbapat de amul problème même suma waa écrit euh, expliqué woon na ma mbapat daal day yokk sa <laughs> day yokk sa kii rek quoi sa sa ak sa kii yooyu mbapat amul problème moo tax ma décroché combat bi pour man champion amul champion bu nekk Sénégal ci mbapato ñun mbapat euh, dañ ko def ba pare doog dugg si Codé Dóor waaw. na bi dama jël pour tëj parce que moom moo gañe ñëpp fii euh, dama jël combat bi pour su ma ko daanee <coughs> dama jël combat bi pour su ma ko daanee euh, ma préparé pour dellu Sénégal parce que combat bi moo ma gën a téye fii waroon naa pare lu yàgg pour dem. promoteur bi suma xarit la depuis Dakar euh, ma ne ko léegi konku demee na ni naa bëre bu paree doog a ñibbi bi suma waa écrit sax dañ ma soxla parce que dégg naa ne suma grand jàppal nañ ko da ngaa te li mu ne ma mbir yi nga ko waaw man xam nga dafa am ñu ma doon dax am ñu may dax si làmb am na ñoo xamante ne nag ñëw nañ ba fekk si ma si ma nekk mbër yu bëri soo limee seen tur dinañ daw mais ku mel ni nees dama ko daan amul komba eh, ñoom am na neex ñëpp ñu ngi foofu di coow ñoom Moussa Ndoye ñoom Yékini Junior amul tànn ñëw ñëpp ñu ngi nañ ma leen jox. xam nga mbir yoo xamante ne ñu ngi Dakar di wax te xam ñoom xam xamante nañ bu baax xam nga nees na ñëw garga boor si ñoom ñëpp ñu ngi foofu ay mbër la ñu ñooy mayante xaalis. ñoom Garga Mbossé comme li ma la wax ñoom Yékini Junior xam nga ñoom am a neex ñooñu dañ ma fekk ci làmb te ñooñu nañ bàyyi tëgg waaw gaynde baa ngi fi toog te fu toll nii dama xiif de te kenn du ma tere fàtte comme ni ñuy wax gaynde gi dama xiif dama xiif de bàyyi la ñu ma place bi ñu nekk nii ki ko moom bëggul sax nga wax turam eh, maa ngi koy nuyu bu baax di ko sant fu mu toll nii sax ci combat bi euh, mu ngi may defar t-shirt lu toll ay boo ko xaymaa ci CFA comme ay ñaari junni t-shirt wala ñetti junni t mu ngi koy defar pour su sumay supporter pour làmb ji te lu mel na ni seen mbapat la ak euh, waa Kololi ak West Coast région bi ñëpp. ak suma président boo xamante ne xam nga ñun ñëpp mbër yi dañ fi amul ku lekkul xaalisam ci làmbu Gambia fii ñu ngi koy ñaanal ci réew mi yàlla dimbale ko li mu bëgg def ci réew mi yàlla dimbale ko mu yeggali ko sargal ko bu baax a baax kooku di Gambien Gambien ak Sénégal yëpp dañ ko doon laaj waaye ndekete boobu mu nga dëkkam daal di toog mais euh, Moustapha li ma dégg ci Gambien. ak ñi mu jot a bëreeg ñoom nees ñoom bismindooy ah maanaam tenor yooyu mu tudd. ñoom naar bi nga xam ni moom la bëree combat yooyu macha allah am ci ay ndam. Hmm. lan moo tax mu dem Gambie daal fay toog. waaw exactement voilà Gambien dafa nekkoon mbër boo xamante ne dañu ko séntu woon ràññee ko ci làmb ji mu devenir un très grand champion. moom la ba léegi mais dafa nekk ci ay tolof dafa tegalee deux défaites te ñooñu ko daan ay adversaire potentiel la ñoo ne jiitu leen ci lamb mais dafa perdoon allure mhm. moo tax lamb compétition la et puis gis mu ko waxee day toog ay deux ans du bëre ay trois ans du bëre mais Gambien mi ma gis nii nii nga xam ne macha allah man je l'ai vu man waxuma ay image de man damaa toog gis ko muy liggéey ma xool ko mais mbër yi fi nekk mënu maa ñàkk xam nag mbër bu nekkoon ci état mais li ci ëpp importance mooy li dem ci dëkkam bi nga xamante ne mooy dëkkam il a la nationalité gambienne dañu koy woowee gambien mhm. mais c'est un pilule bu naqaree wan la mhm. gambien moo tax gars yi bëgguñu moom déedéet il faut ñu bëri na xam nga lu tax ñi fi nekk di laaj combat te ba tey mënuñoo fexe ba am combat wax dëgg fa yàlla ñàkkuñu adversaire parce que ku mel ni Gambie mii nees boobu ba tey mu ngi am mu ngi wër combat am combat amel na ko revanche pourquoi pas amel na ko pas Bismi tamit amel na ko revanche ah, Naar Touré déggatuñu ko mais ah. na ñëw bëri amal na ko revanche mais ñu nekk ay Moussa Ndoye te moom sax ñoom ñi mu ñooñu moom seen morom dafa bëgg a wàcc bëri ñoom la daal mais mooy ci la Dem la foofu ñëpp ku ci nekk moo di giddu ci làmb ëpp la mhm. bu doy waar la am 10 victoires ni mu ko daan amee mhm. donc nag Gambien ñi koy encore encouragé wax ko na gën a liggéey fi mu ko jàpp foofu la ñu ngi gis muy entraîné noonu la mbëri def box bi leer na ci image waaw mais xam nga lu ma jaaxal ci box bi xam nga lu ma ci jaaxal euh, dégg naa seen dëkk nijaay yaa maa ngi lay nuyu dégg nga. Mm-hmm. Mm-hmm. mais dégg naa seen dëkk amul bëre dóor. non amoon na bëre dóor mati. ñu mm-hmm. koy pratiquer. mais comme que Gambia nag dëkk la boo xamante ne c'est un peu fermé ci yenn ci yenn situation yi. dañ jékki-jékki rek dégg message bu dem. ñu ne bëre dóor dañ koo tere. est que nijaay ko joxe je pense que ne kenn terewul bëre dóor mm-hmm. dañ ne dañuy privilégié mm-hmm. li nga xam ne mooy bëre simple bi cosaan mm-hmm. bëre dóor bi nee nañ tubaab yoo ko fi indi ñoom seen yoon nekku ci mais donc les promoteurs ñoo war a seen ay bagage ah dem fi ñu wax dem dem seeti ministre bi dem seeti président wu CNG bi organiser commencer continuer organiser seen combat de lutte je pense que kenn terewu quoi gisuma ban dëkk ci Afrique la ñu yóbbu bëri dóor ñu koy tere surtout Gambie bi xamante ne mook Sénégal mais et puis c'est ay jeunes yoo xamante ne dañu bëgg bëre opté seen seen life def ko muy bëre dóor ñu nekk ay Gambien donc ñu ngi jël sport boo xamante ne dafa populaire tellement au Sénégal ñu war ko yóbbu en Gambie lépp lu xew Gambie mhm. moo xew Sénégal lépp lu xew Sénégal moo xew Gambie ñaari dëkk yooyu nag benn mhm. bopp la mhm. kenn mënu ko diviser par deux donc ñu ngi demander solennellement aux autorités gambiennes ñu taxaw ci bëri dóor bi ndax li mu mën a jur foofu kat ah beneen affaire ko ràcce mhm. comme ni mu ko ñu nuyu nag baax a ki nga xam ne nag moom moo di seen ministre des sports mhm. di Allié Diamé ah, ñuy kontaan ci moom bu baax a baax ak nga xam ne mooy seen ministre du tourisme mhm. Benjamin Robert di kontaan ci moom baax a baax ak promoteur bu mag boobule nga xam ne nag moo di Lamine Thiam ñu gën ko xam ci li nga xam ne nag moo di champion ah ñu ngi koy nuyu di kontaan ci moom baax a baax ndax nag dafa amal ay journée le 28 euh, février xam naa daañu delluwaat Gambie incha allah ndax nag ko fii di ànd ak kenn ki nga xam ne caay di wax moo ñu dar moo